dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyantoo yéen kaay gi di mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu mi ko waaye nat daan na koy passé xaw mi ko di jeex moo xëy duñu ko xibaar ndax nee ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi maanaam dafa mel dañoo xabtaloo maanaam détermination bi nga xam ne moom la ñu àndal maara day tale te ki nga xam ne moo njiitul Pastef tey ji ci alxames ji dafa war janoo ak Mame Mbaye Niang ci tribunalum Dakar jëm ci wàllum projet 29 milliards yu yi yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ak ñoom tim ne foofa xool rek da nga fa gis police gis fa gendarmerie yéen kaay gi nee na Ousmane Sonko tey jii lay wuy ji nag ca tribunalum Ndakaaru te xam ngeen ne maanaam su génnee xale yi dagg ñu bari am nañu xel mu tey ci na ñi nga xam ne ñooy militaires yi fenn ci Ndakaaru maanaam am na ci ay axe yoo xam ne gis nañu fa militaire yi maanaam renfort dëgg la gars yi def armée la ñu woo daal def renfort lan moo ko waral te nag lu jëm ci wàllu maintien de l'ordre loolee yoonu armée nekku ci lan moo tax ñu andi armée loolee mooy laaj bi à quelle fin yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee Askan Wi marche bi nga xam ne ni ki démb dañu ko bëggoon a amal ci Ndakaaru préfet bu Ndakaaru da leen koo daal di mujjee tere waaye ne maanaam ñi ànd ak coalition Yewwi Askan Wi doon nañu fa amal ay manifestation a kaay gi di Sud Quotidien ci àtte Ousmane Sonko Ousmane Sonko ki avocat ñoom nag d'accorduñ benn yoon ci àttekat bi maanaam ci juge bi bi dañu koo lànk dafa am benn récusation boo xam ne dañu koo def yéen a kaay gi xëy di ko dëgg ndax nee nañu avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag ñu ci àttekat bi maanaam ci juge bi ndax ñoom wóoluwuñu ko yéen a kaay gi dale quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu cité kër góor gi ni ki démb dafa mel ni guerre moo fa amoon maanaam la xam ne moom la ñu fa wàcce ci takk dara maara a kaay gi di vox toppale xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko kay dañu témoin moom li mu gis daal nee na ci Sénégal gi yëpp ni ki démb gis nañu ay manifestation yoo xam ne ñi ànd ak Ousmane Sonko coalition Yewwi Askan Wi doon nañu ko amala yéene kaay Mamadou Omar Ndiaye gii de la témoin ndax nee na Sénégal ndax jëmul ci ñaareelu kaawa ndax Sénégal jëmul ci ñaareelu kaawa loole la journal bi de la témoin xëy di laaj yéene kaay gi de la quotidien yor yora nee na en tout cas li amba de sàll ni ki démb ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko wane nañ seen bopp bu baax a baax ci biir réew mi rawatina fi nga xam ne nag mooy Kër Masara ndax Kër Masara ñi nga xam ne ñoo fa nekk ni ki démb dañu ko tàngal ba maara détaali yéene kaay kaay gi di Walf Fadjri nee na nag jamono ji tiitaange tey ji la bisub dëgg bi diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac yi ci biir yéen kaay gi de la sa Cheikh Oumar Thierno Bachir Tall moom nag sàkku ci kilifa diine yi nag ñu yëkkati seen kàddu ci tolluwaayu réew mi ci tension réew mi yéen kaay gi de l'info la xëy fësal ci xëtam mu njëkk nee na njiitul di Ousmane Sonko dañu ko daal di séquestré

Sow mi fi yoroon ay jamono wàllum kër yi moom nag nee na procès Ousmane Sonko Mame loole nag lu banal la maanaam nag wuruñu koo def mbirum état yéen kaay gi di Vox Populi nee diwaanu Bignona ni ki démb toj na ndax ay jigéen ñoo simeeku doon manifester yéen kaay gi di ko di cee nee na ni ki démb diwaanu Kasor maanaam Auchan bi nga xam ne moo nekk Kasor dafa rëcc de ndax ni ki démb bëri nay yoo xam ne ñëwoon nañ ba ci Auchan bi bëggoon bi nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko kero ca mitin ba daan nay wax ne maanaam buy dem tribunal kenn du ko tànnal fan lay jaar te nag buy génn xale yi topp ko yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy diñu xibaar naan ñu Ndakaaru njaay niki démb yëngu na bi ñoo naan niki démb yëngu na yéene kaay gi di Le Quotidien nee na Ousmane Sonko ko daal di bloqué ca na ñi nga xam ne ñooy takk ñoom nag ñoo fexe ba la jal plan yi nga xam ne Ousmane Sonko ñi ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi niki démb ca diwaanu Thiès amal nañu fa ay mobilisation yu rëy ca diwaanu Mbacké amal nañu fa ay mobilisation yu rëy ca diwaanu Sédhiou amal nañu fa ay manifestation yu rëy ca diwaanu ay manifestation yu rëy yéen kaay gi ñu Ousmane Sonko démb dañu ko bloqué am nay journaliste yoo xam ne dañu leen a dóor ay grenade lacrymogène ay député yoo xam ne dañu leen a blessé ku ci ni Guy Marius ndax dafa demoon Rewmi Quotidien yaanaa maara ñoom nag ñaawlu nañu bu baax a baax xam ne moom la ñu doxalee njiitul Pastef di Ousmane Sonko ñi xam ne nag ñoo yor Pastef a ñoom tim ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax appel à l'insurrection xam ne Ousmane Sonko def na ko maanaam woote fitna gi xam ne Ousmane Sonko ma ngi koy woote fitna loolee waa APR ñoom ñaawlu nañ ko ba maara détaillé yéene kaay gi na mars marche bi nga xam ne yeewi bëggoon nañu koo amal démb ci Kër Masar dañu koo daal di tere waaye nag xale yi démb ci Kër Masar génn nañu maanaam Kër Masar démb tàng na jër yéen kaay gi de les écoles xëy dañu xibaar naa ñu Ousmane Sonko ma ngi belende wo ci lu jëm ci wàllum avocat ndax am na avocat yu jóge bitim réew yoo xam ne ñëw nañu ngir layal Ousmane Sonko yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naa ñu jiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag mooy ñu defal ko bilan ci xëyu ndaw ñe lu soxal wàllum recrutement yi ak wàllum financement yi ak wàllum formation bi yéen kaay gi du Source A nee na si démb la ñu ko doon attee waaye nag nee na dañu koo complot démb ca tribunal ba am na benn avocat boo xam ne si Sitor Ndour daf ko daal di saaga yéen kaay gi de l'info nee na Sitor Ndour nag li tax mu saaga avocat boobee nee na avocat daf ko wax na ko yow violeur nga yéen kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar nañu na boobe nag dàq nañu ko ba altine ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nañu waa UNACOIS ñoom nag nee nañu bu suukar si manqué ak bu suukar si yokki loolee ñoom seen yónne ko si kuy wax na wax accompagnie sucrière sénégalaise ñoom la ñu ko tuumaa la yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa Thierno Dieng wax na ci combat bi war a dox diggante caatu Yoff ak Tyson 2 nee na soo moytuwulee kaawa dina am ci lamb jooju